mbokku Samagal TV mbokku internet ñu ngi leen di nuyu di leen jaar di leen balaax di leen wax ni ma honneur aux dames di ci mois de la femme tey huit mars ñu ne nag euh, delloo ñu ko suñu jigéen ñi nga xam ne ñu ngi càmm bi tey maa ngi ñëw fekk léegi di leen nuyoo wax moom mooy kan ci càmm bi président bi ma leen nuyu. maa ngi lay fay bu baax si sa jot di la jaar nuyu ñëpp rek bàyyiwuma kenn. incha allah.

waaw dama doon yar yaru kër waaw ko doon yar léegi comme xam nga jëm na ma ko mu may ma yor ci laa fii di ko di ci yar am naa quinze ans te léegi maa ngi xar yi dama yor ci laa di ci liggéey ba benn jour sama benn doomu bàjjen ñëw fi na ma gis naa ni nga bëggee xar am na xar yoo xew daal yoo xam ne ñoo gën yi ma ne ko yaa xar mu laado léegi da ngay ñëw sama kër ga moom mu ngi da ngay sama kër boo ñëwee nga xool xar yi keroog ba ma demee nag këram gis xar yi moom bi ma ñëwee bëggatuma xar yi damaa ñëw rek saxee génn xar yëpp moom mooma njëkk a jox femelle bi njëkk a ci laado ba nga tuddee gis transition yi dama may sama benn mag bi jigéen mayoon naa ko ci benn ñu ci des ma jaay yi ma tabaski ma def leen xaru tabaski. génne dugal femelle boobu. nag yor ko bi ma koy jaay nag dafa amoon tëb ndaale doom bu góor noonu laa benn femelle boobu daal ci laa yor di ci liggéey di changer di changer am nga yooyu ak yii léegi bokkatu. bañ ma yore yi xat macha allah xari mom boko boo rek dang ko yor man limay wax rek mom xaalis duguluma ci woon dama ko bëgg gis ko ñu mu rafet man daf ma jaaxaloon parce que ni ñi toll waaw waye comme ni wax rek xari mom bu dé bëgg-bëgg daal momu ci dugal mom bëgg man ni parce que dama daan gis tilabéer yi day judd am ay 5 mois 7 mois la laadum bu ñëwee 4 mois 3 mois da leen di dépassé loolu moom man daal ni xar yi di moom a gën a dugal ci xar yi moom waaw dañuy gaaw a màgg waaw waaw loolu moom dëgg dafa ñëw indaale tëb jural ma fi góor góor la fi njëkk a wàcce waaw après nag may dem ci sama càmmiñ ñu baaxi rek téye boobu téye boobu ba yàlla baale ma ak Cheikhouna Mbawar Fall comme femelle yooyu dafa yemoon ni rek waaw borom daara jorof tey ay téyam produit am ngi fi mu jàpp ci sama élevage lool nag bi mu ñëwee nag gis femelle boobu ma yor ko moo ma njëkk a wax booba temps mi maal bi ñuy wax koppar mu ne ma bii ko indi kër nag ma yor fi ñaari doomu koppar yooyu yëpp génne naa ko léegi waaw naa ko léegi yooyu waaw. yooyu moom presque yor dama dem uti leneen am naa fi femelle yoo xam ne Cheikh si naa laa ko jële mhm. mu jox mu femelle ba pare may ma tëb ñoo fi nekk di produire xar yi fi nekk yëpp daal benn rek laa fi juddaloon li ci des yëpp maa ko juddale li ngay gis yëpp maa ko juddale passion moo ci dugaloon département lay nag découvrir laagum ah maa ngi sant yàlla rek nekk sama ruq daal di liggéey di sant yàlla bu baax sa sant nag ki ma war a njëkk nag mooy ma sante sama waajur yi ba pare teg ci sama borom kër nga xam ne moom da cay jàpp bu baax a baax

dem naa exposé tëngéej tam ak bi nga xam dañu jëlone jëloon jigéenu afades yëpp may leen benn box ci foire bi passé salle de bi bobu tam sama xar demoon def adèr wa bobu la ñëk exposé Kër Massar waaw boobu laa njëkk exposé wa première fois bi ma ñëk a bobu après ma dem tëngéej wa waaw non non musuma dugg concours déedéet déedéet actuellement Gue léegi nag mu tudd laa ne da ngay yar ñu teew ko mais est ce si tamit yaa ngi ciy def ay commencé ma génne léeg-léeg ma yor benn xar nit bëgg ko ma jox la ko waaw loolu moom mënta ñàkk. waaw passion. waaw maa ngi ci passion bi daal man daal maa ngi sant yàlla daal parce que man moom prix moom du ma booleeg nit waaw metti na metti wul parce que mom jigen xam nga dolem dooleem bariwul daanaka lepp dañ la koy defal da ngay fay rek ñu defal lako ma nek ak borom keur gu ci japp lol nak lepp mo koy def man neena li jigen ñi yar élevage yépp goor ñi ñi yor dal yalla ñu melni ni Cheikh Ibra ah. ndax moom da cay japp bu baaxa baax moy jënd lepp man xar yi sama dara demul ci te bu ma jaayoon tey xar léegi bu ñëwee moo ne ko xaalis baa ngi nii soxlawu ci téeméer ma su ñëwee jël junni sa xaalis la yaa ko moom la ma yor maay faje sama soxla ma loolu yombul kay sant di ko ñaanal yàlla bu baax yàlla yokk sutura ak xéewalam waaw. quelques sujets yu fi nekk. ah waaw ma génne la Binta Jaw rek. nañu Binta Diaw maman nee Binta Diaw mooy kan. Binta Diaw mooy kenn boobu espoir. waaw moom mooy kan Binta Diaw maa ko juddale. yaayam a ngi fi waaw. yaayam a ngi ci mbaar mi. seex moom seex la. maa ko juddale waaw. Binta Diaw le huit le huit lay am le huit bi lay am deux ans. waaw ah, macha allah. waaw kii femelle bi ànd ak doom bi ah. waaw bi ànd doom femelle bi moom mooy yaay faal. ok waaw mooy rafet kaar bi ma léegi doomu ne leen kaar bi. ok euh, moom moo ko jur. moo jur femelle bi mais yaayam tamit génn na ci léegi. yaayam kii mooy magu jeune mâle doomu boppul la bi. moo kii bokk yaay. seen yaay mooy tët nii boobu. mooy tët nii bi waaw Fatou Seck. ok waaw. kii nag doomu rafet kaar la maal bi fi jaar moom ak ak femelle vingt deux mois bi kii woon ñoo bokk papa moom it d'accord ñoom ñëpp fii lañ juddoo bergerie Lansar ñëpp fii bi fi mujjee jógee bi jur tëng yi ah. mooy Cheikh Tara moom mbote bii la fi mujjee am ñoom ñaara ko jur mooy taawoo mooy jur mbote bi waaw kii la taawloo waaw mbote bi am ñaata weer euh, mbote bi ñaata ñaata boog laa bëgg wax xam am un mois un mois ok macha allah ok bàyyil kooku kii ñaata porté la moom moom moom benn porté la am mooy première porté am waaw su mel boobu ci ginnaaw aja jàppal ko mel boobu waaw yaayu yaayu gétt gaa ngi nii ah macha allah ah. mun naa ne xar yi fi génn yëpp laal nañ ko ñi fi génn ñëpp laal nañ ko ba mu des benn benn benn xar bi ma la xam mooy madame Bono tëng ah, boobu ah. kese moo laalul ci kii mooy kii kan mooy kii kii mooy waaw kii mooy Kumba Njaay kii mooy doomu Pape Ndaw bi kii doomu Pape Ndaw la mais yaayam doomu Daraame la ok moo jur femelle tête nuit bi moo jur femelle tête nuit bi ak femelle vingt deux mois bi fi génn léegi Binta Diaw ok waaw femelle tête nuit bi moo jur femelle bu ñëw bi jaar léegi moo jur jeune mâle bi ok maanaam xar yi nekk ci gétt gi yëpp fi lañ juddoo ba mu des moom ba mu des moom waaw ok moom it ñaata porté euh, instant yi nag kii war am ay six porté six ah. porté ah, yëpp fi la ko defee porté wala ba mu fi ñëw fi la ko defee fi la ko defee ah, kon ba fi Masalah, allah bi fi ñëw dafa ànd ak tëb ah oke. kii mau moo jóge woon ci. seexu naa mboor ba moom nga allah ah famille bi macha allah. yaayam doomu daraame la. Oke. macha allah. mooy ndey gerte gi beneen gerte gi defe naa présenté wuñ la ko. waaw mais mais mais fu mu génnaat de sama sama dafa daggoon. ginnaaw la ma yëg ah ñii ya. Binta Diaw ak ak kooku waram. avancé le ok c'est bon voilà. waaw sëñ Mangane nag sunu premier bëgg ma gis eh, benn femelle bu ànd ak benn jeune mâle ak ñaari tëng macha eh. allah bokk sama gars ñu ngi fii ci bergerie Lamp Fall macha allah mhm. aca eh, kii waaw femelle bi moom mooy Binta Diaw mhm. nekk doomu rafetkaar yaayam nag moo fi génn léegi mooy femelle bi mag bi naan la def na six porté ok muy doomu Pape Ndaw bi waaw kooku moom moo ko jur ak benn mâle bu wax macha allah yaayam si daamloo la jógee woon mhm. lu daamloo mi fi gañe woon foire rek mu jox ko Sidi Ndaw femelle boobu la jël teg ko ci volcan euh, volcan jibi séeréel moo ko jur ak maître si maître si sa joojo moom moo ko jur ak góorgóorlu doomu lamb mhm. waaw jibi séeréel nag booy séeréel moo ko jur ak taawu algoor waaw jibi séeréel boobu la ñu jël euh, euh, teg ko ci teg ko ci maître si sa mu jur femelle bu ñuy wax volcan waaw doomu volcan bu jigéen lañ jël teg ko ci rafet kaar mu jur kii rafet kaar neelen kaar moo ko jur neelen kaar nekk doomu magistrat mais yaayam doomu Bachir la waaw kooku mooy papaay ki maal boobu nag fi la jaaroon moom euh, deuxième portem la yor nii mu ngi ci premier porte mais mu ngi ci deuxième portem la téye nii âge vingt deux mois ana doom doom bu njëkk bi waaw doom bu njëkk mu ngi ci bokk bee dina génn incha allah bàyyil kooku dem boobu boobu mooy kan voilà waaw añel bi euh, añel bi moom mooy madame Fall hmm. moom borom bergerie bi lañ ko tuddee maa ko tuddee macha allah waaw comme añel yi fi juddoo yëpp jigéen afa def lañ lañ leen tuddee muy madame Fall mère Fatmata Diop raw Degen Njaay mati madame Bonheur waaw kii nag mooy madame Fall macha allah kii doomu Seex Tara la mais mook femelle bi ñu téye léegi borom vingt deux mois yi ñoo bokk benn yaay kii yaayam doomu Pam bi moo jur kii doom Pape Ndaw bi tam moo jur. moo jur kii kii la feral. ah kii ah kii mooy caatu instant. waaw kii la feral non instant mu ngi ci porte. mais waaw mais instant kii mooy doomu a. waaw waaw kii la feral kii. Euh, Cheikh Tara moo ko jur. Cheikh Tara doom Black Panther la. Black Panther galactique moo ko jur ak jeew ba abukan doom may Tara. macha allah mais yaay Cheikh tera doom Daouda la. Daouda mooy maal doomu subeeru bi ci amoon vingt mois def cent soixante deux kilos yi foiru te ngeej. macha allah waaw doomam bu jigéen lañ jël teg ko ci euh, teg ci Black Panther. mujur sejahtera sejahtera mujur kan jadi aja masalah Allah, jenma bu moy ya, kan. Wa jenmal bi ki moy Sonko, Nek domo Bapulo ak Fat Seck. waa yaayam pamdau pam ndaw mo jur yom pam ndaw bi mo jur yaayam moom it yaayam mu ngi ci biir box yi tet di bapulo bopp la duugaynde moo moko jur ak ben doomu Fadel Fadel bi newon bergerie euh, Touba Xayra bu ci rek uh-huh. Fadel bobu Ferdinand moko jur doomu gelawar ak Jasineer doomu Latsukaabe waaw doomu Fadel bu digel lañ jël tek ko du duugaynde doomu gaynde mu jur Bapula Bapula lañ tek ci Fat Seck te doom Pam daw bi jur ko mu jur general bi Ousmane Sonko waaw mu ngi tollu ci 8 mois. macha allah. très beau a tang waaw bi mooy kan. waaw allah kii mooy Mati. Euh, madame bonheur <laughs> wa ki tamit doomu Cheikh Tara bi ñuy wax léegi la mhm. wa mais yaayam doomu metro la wa yaayam ak Boy taala ñoo bokk ben papa wa moy famille yi maire doon wax yi ko seexu joxor ma sha allah wa ku ci nek dafa àndoon ak tëb kenn ki and ak tebu metro ki ci dess euh and ak tebu copar doom max sey ma sha allah ñu ñew fi wacce ñom ñaar ñepp jigen ma sha allah wa kenn ki doom bu jigen lañ jël jox ko Cheikh Tara mu jur ki Cheikh Tara moy doom Black Panther bu ma wax legui di jur teung madame Fall macha allah ah, madame Fall ak kii ñoo ñoo bokk papa macha ki moy mati madame bonheur borom bergerie Cheikh al Islam te ngeej allah madame bokk ok wa mom moko joxone mal bi sen papa maté ko joxoon transfer, naa fan yi mu def transfert bu am solo gambi wa macha wa waaw mo ah. defone transfert ah, bi jox ko mom tay mom moom la lay wax jigéen na ko joxone mo ñëw def teung bu rafet bi ak bi jall leg xam nga ni jeune mal bobu ah ah jeune mal boobu doy na de oui des na benen teung mo ngi mu ngi beneen doomam bokk sama gars TV beneen loo génn na encore une femelle ak seen maal mu fa demee sëriñ Mangane mhm. te nii ba ma nga doon wax sànq ba léegi dafa naa ne moo gën waaw tet bi ah. moo nekk nii ñu koy a Faat Seck uh-huh. moom mooy magu Binta Diaw femelle bi am na vingt deux mois ok ki mooy magam mooy magam moom doom Paam Ndaw bee koy jur ok ñoom ñu seen mag la booy xool xar yi fi nekk yëpp bu dul tëng bi fi jóge léegi madame Bonheur uh-huh. rek moo laalu si doom Paam Ndaw ñu ñëpp benn femelle moo leen liggéey ok waaw te ñoom ñëpp fi lañ juddoo. léegi doomu Pape Ndaw boobu. Mhm. Euh, euh, maanaam euh, famille bi dugg léegi Fatek. waaw ak kii fan lañ ci ci seen papa yi. seen papa yi kii benn sëtu macha allah moo ko jur bu Pa Mansour. ok kee sëtu magistrat moo ko jur. waaw mais ñoom ñoo bokk benn yaay. doomu Pape Ndaw bee leen jur. ok waaw kii mooy seen mag. kii moo jur jeune bi génn léegi Ousmane Sonko. Ousmane Sonko doomu boppul la kii mooy yaayam. moom mo jur tamit femelle bu ñuul bi. ok benen doomu rafet rafetkaar robe noir bi am benn porte ki moy yaayam mo ki nga ne ci kan lañ ko tak ñu jox Ousmane Sonko. euh ci Bapulo. ci Bapulo du gaynde bu du gaynde mu jox Ousmane Sonko Ousmane Sonko. macha allah. ko mm, ko nga japp ñaar ñoñu kenn ya jappal seen mal bi waa. mal bobu encore en tout cas macha si jël maal mooy dañoo am kees quoi dañoo am maal yu ay maal yu am doole la ñu nekk. waaw xawal bàyyi bopp bi waaw jël maal bi nag. waaw waaw. foo baax na waaw nanka waaw foo baax na mais nanka voilà. waaw jël bi jeune mâle bi euh, kii moo ko jur euh, Binta Diaw mhm. mooy femelle vingt deux mois la wax naa la benn porté la may laaj doon waaw moom kii la taawloo ah, waaw ci mooy taaw waaw ci mooy taawam kii mu ngi ko jur ak marnaan marnaan doomu sàll ngaari la sàll ngaari roi Basiir ko jur ak benn doomu Ablaye yaayu marnaan doomu Jóob la waaw Jóob si doomu masala Papi Jeey la waaw marnaan ak jomba ñaaw ñoo bokk papa seen yaay yi ñoo bokk tamit yaay jomba ñaaw moo jur ñaari añal yi defoon ak yi si foiru Saldeg ok deux beeg waaw waaw seen papa ak papaay kii ñoo bokk benn papa. seen yaayee bokk benn papa waaw voilà Mansour seen seex yi seen bokk. waaw seen seex seen papa. mooy Jomba Ñaaw kii Marnaan mooy papaam. Marnaan ak Jomba Ñaaw ñoo bokk papa Sall Ngaari. Ah, seen yaay yi tamit ñoo bokk papa seen yaay doomu Diop si la. Ah, ok waaw. waaw ci doomu mar la moom dafa dafa laaj Diop sax dafa indi Diop si de. waaw voilà waa ah. gis nga waa Diop si la la ah. indi waa bi waaw. boo xoolee dafa waaw balanceur dafa indi Diop mooy taawu femelle boobu. beneen tënk bi. Hmm. kii mooy Degen euh, Ndiaye Fall. Hmm. bu président organisateur euh, APADES. baax na baax na foofu baax na ah, président organisateur APADES lañ ko tuddee muy Degen Ndiaye Fall. waaw moom it bi maax bi jur jeune mâle bi. Uh-huh. Euh, seexam moo jur kii. ok seexam moo taawloo kii moom tamit mais kii seex tara mooy tara mooy papaam. macha allah mook yeneen ñaari añeel yi madame Fall ak mati madame Bonheur ñoom ñoo bokk benn papa. waaw mais moom seexu Binta Jaw moom mooy yaayam. ok waaw daal euh, gis naa ni. Euh, bergerie bi daal nii la demee bergerie Lamp dugal maal. mu jaar fi ñu téye si quatre femelle uh-huh. bàyyi mu dem dugalaat beneen mâle mais tam lii yëpp euh, boo pour man liggéey euh, bi fi jiitu moo def liggéey bi moo moo def lii yëpp ah. waaw ñii ñëpp dañ ko laal li mu li mu indi rek waaw li mu indi ah liggéey bi moom moo ko def te doom yi ak moom mâle boo ko jox mu contribuer waaw boo ko jox mu waaw waaw mu kon moom moom peut liggéey bu baax moom macha allah waaw ah. mâle fi tamit tëb xar yi génn nañ mâle boo am na xar yoo xam ne génn nañ leen pour ñu tëblu si yenn mâle élite yi xaar leen après ñii bu ñu màggee. Uh-huh. comme ku ci mel ne Ousmane Sonko ak Gambien. waaw après si yenn xarit mën a jaar rek ñu jaar ci eggali liggéey bi ko macha allah. Euh, kon daal euh, liggéey baa ngoog. Mm-hmm, macha allah euh, kontaan nañ journée la mm-hmm. mm-hmm. daal laa bëgg man. waaw mais laay taw. laay looy wax. man damaa kontaan moom la fekkee laay. sunu gaal TV daf la ameel njukkal macha allah te élevage nag moom du lenn lu dul mbaax yëg am fulla am fayda nangoo liggéey te ku ñëw ci àdduna rek yàlla fi la jaarale mooy jigéen tey tombeeg la huit mars nga ñëw ci jigéen joo xam ne muy jigéen ju jàmbaare di ko boroom këram teg muy Cheikh Lamfal transport moom mu yor bergerie mhm. di jigéen bëgg mhm. jiitu ci moom d'abord borom këram jàppale ko saayran wa baatina macha allah heure buñ fi ñëwee balaa wax kenn day sant borom këram man mii sax balaa maa jox accord dafa ne ma xaaral ku am kilifa la mhm. ku bëgg nit la ku yaatu la ku xam taraanga la mën naa ne yàggul ci élevage wala bu ci yàggee it fi mu ci toll tey xolom bu rafet moo ko fa yeggale mbaaxam dëggoom joxewul bopp rocc làmmiñ man bergerie làmp Fall léegi ci laa bokk ndax dafa gis nit koo xamante ni bi muy dugg ci élevage ma dégg ko cay nit ñu wax bi mu tolloo ci ñaan tëb daa woo ñaari nit muy Cheikh Cissé ak aleloo Daara Jolof mhm. ñu joxoñ ko génn jëmm ni ko jàmm gën te moom kese nekkul jàmm gën ko li nga bëgg day yaakaar nañ ne boo demee ci diw danga ko fa am muy sëriñ màngaan yàlla boole kook moom ma gis sëriñ mu yàgg ci élevage ci ñu mujjee xam la bokk ma dégg ko ci réseau mu ne ma man amuma benn bergerie bu may këtse ku dul bergerie Lamp Fall Caaroy Ajir bu soxna Koddu Njaay wax ko nag ak haute voix kon loolu ànd bu sincère la tey nag buñ buñ duggee ci 8 mars mm-hmm. di sargal jigéen ñi jigéen ñi tey dugg ci élevage am performance biñ ci def mm-hmm. sëriñ da koy seede mën naa ci citer ki nga xamante ni mën naa ni njëkkul ci élevage muy suma yaay soxna mère Fatmata Doumbouya bergerie naa Fanta Diagne professeur Mangane wax na ma ko Aminata Mbengue Ndiaye xaali jox na ko lauréat mhm. ci diggante Albouri bu Pape Gueye Medina ak Bidiw tey xar yu ñu fiy tudd tey fii capital génétique bi ñu fi lim jigéen contribué na ci ndax euh, magistrat dugg na fi te mère Fatmata dumbuya mo jël Cheikh Diop jox ko le gardien de la constitution de Mouton Abou def auteur au garo 112 magistrat def auteur au garo 110 ba élevage galoya am fu mu toll ken mhm. dotul wax élevage te tuddoo galoya muy mhm. Abou Kane mhm. beneen bi ci des nak gor ñi nañu gëna jappalé jigen ñi gën leena sayran wa batinan parce que jigen ñi nak dafa metti ci ñom imaginer li ma lay wax suñu gal TV si Dia sang xar xolli mbaru xar yëkkati saaku pikir, pikir lepp dang koy fay ba sa xar bu deewee sa da ngay woote fay ñu sànni lako mën nañu togg añ sang xalé ñu dem école topato sa borom kër topato xari yi jigéen ko kon ñom buñ ci nekké rek bëgg tax waaw ñu nekk ci motax le 8 mars bi kenn momuko du suñu yaay Masyaallah. Sir, suñuy sœur suñuy mam, suñuy badjan, suñuy umpa. Masyaallah. allah nak lu xew ci élevage ngir yàlla ak yonenté bi ma ngi lancer appel fi ci suñu gal nga xamni ku duggul ci gal gi do gis élevage <laughs> nax yi am ci élevage am ci ak triant yak yoy. nga la rek way nañ am yermande ci jigen. Jigen di jitu ci élevage numu tuddu. tudd Koddu Njaay la tuddu. borom minyan ak Faisal. Kenen ki ci top kan la Fatou Abdallah borom Menke ñoo ñëpp a def performance moo tax kii nag bi mu ñëwee ni la jigéen la bergerie Lamp Fall Thiaroye Azur soxna Koddu njaay li fi indi liggéey bi yëpp ngay gis Kumba Ndiaye la tudd femelle bi jigéen la ko tuddee Kumba Ndiaye am na fi Binta Diaw am na fi Fat Seck am na fi madame borom am na fi Adja Dégène njaay Fall am na fi kon kii delloo na mbatt ca ndaala lu mbaax ak yëg lu mu séq ak yow bu génnee yow yaa ko nettali te du baadoo la xam na teraanga ndax nag fi mu bokk la nii la mën a mel. macha allah al al al alburey maamam buunaay maamam. si sa jan nag yow di la ñaanal ci axlu élevage xam ne danga ngaa indi sa contribuer ubbi réseaux sociaux yomb na ubbi seen YouTube yomb na mais def ci lu intéressant moo jafe. ah ma déggee ni da fi ñëw dama jógee ñàkk Europe ndax sëriñ bu makar, ma kar lay saw nako ko ñëpp dégg professeur Mangane bu nee ma kar lay saw fekk ma Tamba bala coupé départ na man sëriñ ni na mel ak nii sequma ko mom. gis nga nit boy japp da ngay japp rek ta yalla tax may lancer waat nak benen appel élevage am na ñuy jàppee nit mbubb am na ñuy nit kër yu rafet am na ñuy jàppee nit auto mais da beri. def at yu bari biñu def transfert bu mag bi barki demb mune lay saw man devoir wax joj daf ma impré mu ma man embrayage la yakar moy Lamp Fall transfert nga xamni transfert rek lay def ak ay xaram mune ma awma ma xaar ma yalla kenn ci élevage ndax rusna si sa jani ma professeur Mangane jëlal ma xar fi yobul mako fe mune la mom du dugg ci kër gele kon koku mi ngi sàng sàmm jikkoom macha allah te na nak ñu nekk ci élevage waaw tay am ay limite ah merci ya ko wax foire am na heure bu ñuy ñëw <laughs> ndaje éleveurs yi mën nañoo daje ñuy couloir bi jaar na le bokk na ci ñu may bàyyi xel macha bokk na ci ñi may déglu du ma def dara te waxtaanuma ceeg moom te bañuma ku ma corriger mais dañoo bokk ay ambition li muy xeex moom lay xeex wala boog li mu gëm moom laa gëm na balance bi tolloo élevage bu ko kenn yàq nañuy wax dëgg nañu jub ndax jub bu neexulit noppale Yalla yalla barkel yalla yalla sam yàlla sàmm nak jigen ji nak hmm. mom dama koy ñaanal yàlla ah, waaw soxna Codou nit ku baax la Cissé te na yalla barkel yal sunu gal nak ah. ku ko siburul <laughs> do gis crémo élevage <laughs> gaal gi ku ci dugul <laughs> eh, non da baax kii nak moy sëñ Fallou sëñ Fallou nuyu neñ la ñu lay delo ziar bi fay macha allah ñu fekk la fii ci bergerie lampal. Fall ci madame ah, madame Fall Euh, noo noo noo gisee liggéey bi ak lan nga mën témoigner waaw mais Codé Ndiaye suñu dëkkandoo la ñoo bokk dëkk Thiaw mm-hmm, mm-hmm. muy muy nit ku baax na nag. ñu mm-hmm. mën a seede ci liggéeyam nit ku jàmbaare nit ku bëgg élevage tamit ndax ci xal laa ko xamee ay dëkkandoo lañ waaye xal moo tax ma xam. ok damay dama ko fàtte damay julli si àjjuma ci jumaa ji rek mu dégg ay xaal di ndee. ma tudd ma benn mbokk éleveur bu ñu élevage Mamadou Bopp ak Ibrahima Thiam ma ne am na ku nekk fii ñu ne mu nekkoon di la nañ dem seeti ko. bi ñëwee tamit wax dëgg fa ñu fekk ko mu nekk jàmbaar bëgg élevage lool te tamit gëm li muy def te bëgg ko te tamit te nangu cee sonn macha allah ba pare kaa nekk nit ku baax ndax lii lii lii muy def ni yombul mhm. euh, liggéey bi ci góor lañ ko gënoon a xamee waaw kon ñoom ñi nga xam ne suñu yaay bu ñu ko bëggee booleeg yow kër gi bu ko booleeg yow bët bi kon ñoom ñoo ñuy mën ci benn côté macha allah te loolu feeñ na ci ndax gàcce ngaalaama ku ñëw ci ku ñëw ci bergerie bi différence xar yi nga fiy fekk ak nit ñi ngi fi ñi ñi nga xam ne ñi jaar nañ fi ku mel ne Serigne Mangane ak Laay Saw ñoo ñooñu suñ déplacé wu ci nit def ci moom deux heures de temps mm-hmm. xam nañ ni ki ñu fekk day nit ku baax wala mu nekk nit koo xam ne seen nit la wala mu nekk nit koo xam ne ku sonn ci càmm la moom nag moom dañ koy bàyyi ak yàlla ndax dañuy nekk ay tout tànk nekk doomam tamit teewut décision bu muy jël suñ ci waxtaanee bu fekkoon jàppoon naa def lenn sax su ma laajee sama xalaat su ma ko waxee dina bàyyi ndax moom jox na ma jox na ma jox na ma wàccuwaay wax dëgg fa yàlla sant nañ ko gërëm ko di ko ñaanal yàlla moom moo mën a sàmm yàlla ko yàlla sàmm sàmm njabootam sàmm lii yëngu bi mu yëngu ci élevage bi bu ci doomu aadama di yegg tamit teraanga bu ci bu ci doomu aadama di am yàlla bu ko jomb yàlla ko yàlla defal defal ko mbooloo mu julli ku baax la daal waaw iya, iya, iya. sama nag TV nag gis ngeen huit mars bi la demee woon tey ñu ngi ci Thiaroye ak seet si woon de la fin bi ak message bi ah di santaat ñëpp rek ñu fi teew yëpp sama càmmiñ yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax dañoo bàyyi seen yite yëpp ndax ma ma borom kër gi ma amul problème ci sëriñ te dama ko woo rek mu ne ma amul benn problème maa ngi ñëw xam loolu jafe na mhm. ma koy sant bu baax nga xam ne man mënuma koo fay dama koy bàyyi yàlla mi mën a fay rek mu fayal ma ko di sant ñëpp di gërëm ñëpp comme li ma waxoon sànq rek man moom sama kii ci élevage moom dama koy njëkk nag ci waa AFADES yëpp nag bàyyiwuma kenn di ñaan yàlla mu sàmmal ñu boppam daal incha allah la sant yow ci sa bopp tam di la gërëm ci déplacement bi di la wax kontaan naa di ñaan sa site bi fi nga bëgg mu yegg yàlla na kawe sa jot am ci lu kawe sa jot ci barke Muhammad bésee bi contact bi la la pour mën a visiter ah, ku ma bëgg a visiter da ngay ñëw Caaroy euh, boo ñëwee Caaroy Azur rek rond point Sicap Mbao jël numéro bi 77 506 53 99 rek incha allah soo ma woowee rek ma fii la nga ñëw macha allah nañ maanaam kon la prochaine jërëjëf xam naa ni gën a yaatal incha allah ba gën a kii xam naa ni jërëjëf dinañ gën a incha allah émission bu neex jërëjëf